di nga xam ñoo fi nekk ñëpp ñu leen ndokkeel ci ambassade yi fi nekk waaye itam di ndokkeel adduna wërngal këpp waaye di ndokkeel nag itam suñu mag suñu doomu ndey suñu doomu baay abu bakar Sarr bi nga xam ne moom la yàlla tabaaraka wa taala jox tey nga xam ne moo fa nekk ci bopp délégation ba DGP di pèlerinage bu Sénégal ndax képp ku wax itam julli da nga wax aj màkk te ko wax aj màkk boo tuddee président tudd ministre bi danga nga tudd ki nga xam ne nag moo nekk ci terrain bi nag muy délégué général au pèlerinage docteur Aboubacar Sarr di dem màkka di ñëw di ànd ak euh, doomu ndeyam Cheikh Abdou Ndiaye bi nga xam ne moo koy jàppale ci liggéey bi waaye itam di ndokkeen waa Renafis yi nga xam ne ñoo nga jël seen maqar alxaas def ko ci jumaa maam Ansu buñ ko waxee mooy union bi nga xam ne voyagiste privé yi ñoo ko sooke dem wut dajaloo am barab bu ñuy daje di defar seen wàllu diine ak seen wàllu aji màkka waaye tam duñ fa yem di tudd kilifa ga fa nekk di colonel Mouhamadul Moustapha Jong bi nga xam ne moom la tout àla jiital ci bopp boobu nga xam ne mooy Renefis waaye tam di juyu di ziar imam ya fa nekk yëpp waaye ziar waa Kofom ak ñi nga xamante ne Euh, euh, euh, yeneen kii yi nga xam ne yeneen mbootaay yi nga xam ne yeneen regroupement yi nga xam ne ñoo nekk ci biir aj màkk bi imaam yi nekk fa ustaas yi nekk fa ñoom ñëpp kenn ku nekk di jéem kemtulaay kattan pour noo mën a def ba mën a taxawal aj màkk mu jaar ci yoon waaye lii yëpp nag buñ ko waxee itam duñu fàtte mukk mukk suñu yaay ja nga xam ne yàlla yóbbu na ko ci àllaaxira muy ajaa joor jóob bi nga xamante ne ku ko tudd ci aj màkka tey nga tudd benn sookul boo xam ne muy woon ci biir màkka nekkoon jigéen nekk borom Arafat ñu tuddee boppam seen seen mbootaay bi Arafat te soxna Julia jiite liggéey ba di doomam ñoom ñëpp ñu leen di ndokkeel waaye itam di di ndokkeel itam waa mosquée sunnatul muhammadiya bi nga xam ne bu ñu tuddee mosquée sunnatul muhammadiya ña nga xam ne ñooy yor comité ya ñu suñu paa yi ci jumaa ya jumaa ja ak jigéen ña fa nekk ñoom ñëpp ñu leen di ndokkeel di leen di nuyu di leen di ziyaar ci li nga xam ne mooy euh, euh, feet de korite bii nga xam ne yàlla teg na ko ci suñu loxo waaye tam duñu fa yem ziyaarewaat suñu mag Sayyidi Alioune juuf bi nga xam ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu jaarale na ci loxoom ci liggéeyu maam Ansu Ñang mu taxawalal ko jumaa boo xam ne walhamdulillahi rabbil alamin ku fa dem xam ne kii def na fi alal ju baree bëri alal ju lew a lew a alal ju baax a baax waaye lépp mu def ko rek ngir lan digganteem ak baayam alaaji maamu Ansu Ñaŋ waaye itam digganteem ak borobam kon yàlla na taala barkeelu ko moom Alioune juuf Nduru juuf barkeel itam soxnaam bi nga xam ne mën na ci wetam di ko jàppale Adja nag Sow bi nga xam ne moo koy jàppale nekk ci daara alquran yi di joxe alalam guddeeg bëccëg di joxe di wane yoonu yàlla yi gannaaw bi nga xam ne sëriñam baayam alaaj maamu ansuna li mu ko jàngal mu ne ca di góor góorlu di jàngale alquran lu mu am ci alal lu am ci ay kër lu mu tuuti tuuti lu mu rey rëy mu jël ko delloo ko yàlla ne lii jox naa ko yàlla di fa jàngee alquranul karim kon yal na yàlla njabootam yu góor yi ak yu jigéen yi yàlla taala barkeel leen dafa leen jàmm daa iman def leen ay dëgg dëgg jullit waaye mu rey lii nga xam ne mooy iman seen biir xol ba bu mu fa jóge ci mukk mu nekk fa sax fa dàkk bi yàlla jàppal leen dimbali leen ba seen bàyyi seen sëriñ am ansu lam lañ ñaanaloon itam yam taala jox leen ko waaye dañu fàtte itam borom kër gii nga xamante ne Adja Maymuna Ndour bi nga xam ne moom Maymuna Ndour Faye bi nga xam ne moom moo taxaw liggéey bu ma sëkk bu toll nii teg ko suñu loxo ne doxal leen nag ci lislaam doxal leen ngir réew mi doxal leen ngir diine ji doxal ngir lépp ñu nekk ci nekk ci di kutti kutti ji ay ati ati at te loolu lépp bu amee mu ngi amee ci mbaaxam ci man-manan ci xam-xamam waaye ci kattanam waaye itam ci li nga xam ne mooy xereñte bi mu am te bëgg di bëgg métier bi muy métier taskatu xabaar xam ne métti na loolu ci àdduna bi jamono bii ñu toll ndax xabaar booy mën a tas loo ci mën a wax xabaar booy mën a yóbbu rek boo ne bii baax na am na ku ne boobu baaxul boo ne bii baaxul am na ku ne baax na nga war a nekk dégg nag diggante bay na xiilin wa xaalin bay na xëcc ak xëccante kii wax na kale wax na kon ñu ngi koy ndokkee mu tam Adja may mun a Ndour Faye yàlla daal defal ko sutura ak tawfiix ak taysiir waaye tam barkeel njabootam musal ko lépp loo ci loo xam ne yàq la ak lépp lu delloo nit ci ginnaaw ak lépp luy delloo liggéey ci ginnaaw ak lépp lu delloo télévision bi ci ginnaaw yàlla musal ko ci waaye télé bi yal dem ba ca kanam a kanam dem ba ci kaw a kaw a kaw ba ni ñu ko bëggee mu am lu kawe njortam kon di dellusiwaat nag ci plateau bi di ziar ñi nga xam ne ñoo nekk ci techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi ak rajo bi ak télévision bi nga xam ne fii ci 7TV di beral loxo ñi nga xamante ne ñu yor caméra di caméraman yi dem ci terrain bi jànkuwanteeg lu ne dinañ di ñaanal yàlla wér ak wérle ak gudd fan waaye itam di nuyu di ziar. ñi nga xamante ne ñoo nekk itam yor diine ji ustaas yi imaam yi ulama yi nga xam ne ci biir rajo télévision ci 7 TV di liggéey liggéey bu mucc ci ayib walhamdulilahi rabbil alamin gisante bi duy bëri ndax kenn ku ci nekk rek yaa ngi ci mbir ndax kulla yawmin huwa fi sha'n waxtu bu nekk ku ci nekk am na ci loo nekk di liggéey boole ko ak liggéeyu télé bi te dara nekku ci lu dul rek am ci yàlla am ci yonent bi am ci njàngale mag ñi waaye am ci itam lu sénégalais yi mën a nekkee benn ñu wax leen lan mooy dëgg bi lan wax leen lan mooy boole doomi aadama yi wax leen lan mooy dajale doomi aadama be ñoom ñëpp foofu nekk benn ngir lan ñu dund dund bu neex dund bu jug dund bu baax ci biir Sénégal bii nga xam ne jalla jalaaluhu azza kamaaluhu moo ñu teg fii yóbbuwuñu Côte d'Ivoire yóbbuwuñu Amérique yóbbuwuñu France ñu Arabie Saoudite fi la ñu indi Sénégal suñu maam yi juddoo fi suñu baay juddoo fi ñu juddoo fi kon ñu war fee toog nag ba jël li nga xam ne mooy relève bi nga xam ne moom la ñu yàlla jox ñu mën koo joxe nag ci diine bokk yi lan ma xew li xew mooy ay ayidul fitril mubaarak ñu waxoon ko ci émission yi passé ne boo seetloo li nga xam ne yàlla daf ko santaale jaam bi saa yu ko santee jaam bi mu nekk loo xam ne am na coono su paree mun na ko feetul kon yàlla am na yërmande ci jaam bi ci biir feetul mooy lekkal ak naanal gannaaw bi nga xamante ne tere woon naa la lekk ak naan tere la sa soxna tere la lekk tere la naan tere la jaxasoo tera la bànneex tere la noflaay wax la nag ne acca jëlal lépp loo xamante ne njàmbaar la nga sol ko njàmbaar la nga tini ko njàmbaar la nga jël ko boole ko ànd moom def ko sa def ko tubéy nga jóg nag ngir la jëfandikoo ndigalu yàlla bi moo tax bi mu waxee ne suumu li ru'yatihi wa aftinu li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu addira chaabana thalathina yowman mu ne woor leen bu ngeen gisee weer wi bu ngeen ko gisaatee itam ngeen wori kon su fekkee ne gis nañu weer ba wari ki nga xam ne moo ko gis démb ka ko gis barki démb ki ko gis tey ñoom ñëpp mun nañu wax ne benn bi la lan moo tax ndax kenn ku ci nekk yaa ngi koy teg ci teguwaay bi nga xam ne jëla jalaaluhu azza kamaaluhu noonu la ko waxee def ne fa in humma aleykum fa in humma aleykum mooy su fekkee ne niir am na wala lënt lënt am na lënt lënt am ci li nga xam ne mooy jaww ji niir am na lënt lënt am na ci xel yi lënt lënt am na ci bët yi lënt lënt am na ci seen diggante juboo amul déggoo amul seen diggante pour ngeen mën def liggéey bi nu mu war a nu mu war a àndee ngeen ànd woorandoo kii ne gis naa kii ne gisuma ko kii ne wóolu naa kii danaa ànd ak moom kii ne wóolu ko du ma ànd ak moom mun su fekkee loolu xas na bi am kon jël leen weer bi nga xam ne moo jiitu weeru koor bi bu dee da koy wut kon ngeen jël weeru baraxlu bi ngeen def ko 30 jours bu nga motalee 30 jours kon premier jour ba ca tegu kon moom moom weeru koor naka noonu même chose mooy répété waat su fekkee ni itam gis nañu weer wi ci biir koor gi gannaaw bu ñuy wooree ñaar fukki fan ak juróom-ñeent muy 29 jours mu ne ngeen seen weer wi bu ngeen ko gisee itam noona ngeen defoon foofa. kon la fa woon noona foofa kon jël leen lii nga xam ne mooy weer bi ngeen seeni ko ngeen wut ko ak seeni bët su ngeen ko gisee inchaa allahu moo dina kon suba ga mooy awalu iid ayaamul fitre su fekkee ne gisu leen ko mu ne kon na ngeen jël lii nga xam ne mooy weeru koor bi ngeen mottali ko 30 jours kon fa in gumma aleykum fa akmiluuhu bu dee chaabaan salaasina yowman bu dee ramadan salaasina yawman ngeen mottale ko fanweeri fan su boobaa nag kon yéen am ngeen seen weeru koor kon lii su fekkee ne lënt lënt am na ci te commencement koor ga ci njëlbeenu weer wi su fekkee ne lënt lënt am na wala boog juyantoo am na ci bët yi ci xalaat yi ci gis-gis yi ci nekk benn ba mun leen woorandoo mu ne ngeen mottali weer boobu weeri fan bu dee biir koo gi bu dee loolu bu fekkee ne loolu tam dalaat na leen déggoowu leen lënt lënt am na ci seen diggante seen xel seen xalaat àndul mu ne kon jëlaat leen ba tey rek weeru koor bi ngeen ma tudde ko 30 jours su ko defee lekkate ga rek ngeen def ko muy iidul fitre al mubarak te ngeen bàyyi yàlla ak mbir mi yàlla nag moom mooy fay doomi aadama bi ndax yàlla ne weeru koor man maa koy fayal sama bopp du ma ko jox yónnante du ma ko jox malaayka muqarrab du ma ko jox xarit du ma ko jox am dara man yàlla man maay jël li nga xam ne moom laa def ci biir koor ma fayal ko sama bopp kon yal na yàlla tabaraka wa taala fayan ñu boppam waaye mu defal ñu jàmm ak sutura ak tawfiq ak taysir husnul xaatima saadu daarini bi jaay seydi bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu mel ni kon ci fan yu mujj ci koor ba ñu jógee ci laylatul qadr ñu nekkoon ci ñaari waxtaan waxtaan bu njëkk bi mooy ci wàllu diine ñu ñuy wooree ci digg koor ba mu jeex nañuy wooree ci fukki fan yu mujj ci koor na ñuy wooree nañu taxawale laylatul qadr ñu ak ñaan ya ca aju yëpp ak la nga xam ne moo ca dem yëpp kon loolu yëpp tey kon jeex na ñaareel ba ñu doon wax itam ci biir weeru kooru Sénégal benn weer la mu mel ni ay at la li xew ci weeru weeru kooru ren gi musul am ci àdduna ci benn weer ñu sànn ci ay carte campagne ci fol ci ay njiitu réew teg fi ay njiitu réew indi fi gouvernement jëlee fi gouvernement taxawal woor naafila tahajjud yi lépp ñu boole ko ubbi fi yooni màkka màkka bi dem ba ñu war ko tëj ñu tijjiwaat ko ba ñaari yoon ba ñetti yoon ba ñeenti yoon ci benn weer lépp ñu defandoo ko fi kon yàlla ku bëgg sénégalais la yàlla ku bëgg sénégal la yàlla ku bëgg ku àddina la yàlla ku bëgg umma sayyidina wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom mu ko wax ne kuntum xayra umma uxrijat linnaas ta'muruna bilmaaruf wa tanhawna an almunkari wa tu'minuuna billah kon ñaar yooyu moo doon sujet yi nga xam ne mu lañ doon depuis weeru lëmm bi passé premier ramadan ñu nekk ca ba dernier jour ramadan ñu nekkoon diggante rek diine ak jamono diine ak jamono weeru koor bi campagne bi weeru koor bi campagne bi weeru koor bi campagne bi weeru koor bi présidentielle bi weeru koor bi syndicat weeru bi aj màkka weeru koor bi bindu màkka weeru koor bi dem pikiru weeru koor bi lépp ñu nekk ca kon dafa mel ni moo tax ma ne weeru koor deux mille vingt quatre bii mosul am ci àdduna ngir li ci xew ci ay ahdaas kasiira jamma ay ay ay xew-xew yoo xam ne yu bëri la yu wute la ay xew-xew yoo xamante ne mënuñ ko woon def ci lu gàtt gàtt ñu def ko ba pare ci génn ci génn ci dama taxawaat cëppeelu ne teel a korité ñu ngi feetu kon dama ne yàlla ku bëgg Sénégal bi la te dara tuuruwul bakkan daanuwul lu dul ne ki nga xam ne. moom la yàlla toog àlla jëlal boppam fa mu ko jëlale boppam muy ñaar ñi nga xam ne politiciens lañu yàlla jël leen ci biir weeru koor bi wala sax mu jël leen itam ci biir li nga xam ne mooy campagne politique bi nga xam ne am na ci te ñoom ñenn ñu bëggoon na bokk ci li nga xam ne mooy présidentielle bi muy Mouhamed Yatta Sy ak ki nga xam ne mooy Mouhamed bin Abdoulaye Dione ñaari Mouhamed yooyu yëpp yàlla taala yërëm leen te mu gërëm leen mu xaar aljanna bokki jullit yi bokki Sénégal bokki Afrique fii ci ci seen spécial Korité ñuy wax ne weeru koor bi jeex na ba muy jeex mu am lu ñu tàggatoo woon ku ko deful woon ba tey jii nga defaat ko ku deful ba suba itam nanga ko def mooy lan nga fexe jël sa mudd koor nga génnee ko nga joxe ko bari waa na koo xam ne mu nga ca mbir ba fàtte ko mu nga ca mbir ba fàtte li nga xam ne mooy wareef ya wareef yi nga xam ne moo nekk ci biir koor ak yi nga xam ne moo nekk ci biti koor te mooy korité mooy fête bi nga xam ne du feetu anniversaire u nit wala buur wala benn président wala bokk anniversaire u koo bëgg wala koo sopp déedéet waaye feet la boo xamante ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ñu ko indil teg ñu ko muy feet boo xam ne rabbaaniyul la feetu yàlla la feet la boo xamante ne feet religieux la du feetu caaxaan du bu ñu war a caaxaanee du bu ñu war a fooyee du bu ñu war a caaxaane du bu ñu war a feccee taal suñu musique def lu ñu neex euh, daal di jóge weeru koor bi commencé yàqaat li defoon yëpp ci weeru biir koor bi kon su boobaa dafay daal di yell ñu ne kon feet bi ñu ngi koy ubbee ci joxe feet bi ñu ngi koy ubbee ci joxe ñu ngi koy tëjee ci woor ah kañ korité ñu ngi koy ubbee ci joxe muddu koor ñaari kilo ak genn wàll ak lu teg wala ñetti kilo nga yëkkati ko joxe ko sa bopp ak sa njaboot ak ñu nga yilif yëpp nga jox ko miskin yi pour bésu tey jii nga xam ne mooy bésu iid al fitr mubarak kenn ku ci nekk mën a doxi soxlaam kenn ku ci nekk mën a doxi yitteem dafi jaamu yàllaam te di dem mukk di tàllal loxo naan dafay yelwaan ngir lan wàll boobu nga xam ne moom la yàlla jox sa koor kooku yàlla dama ko lëkkale dama ko lëkkale associé ko ak li nga xamante ne mooy lépp loo xamante ne wàllu social la ngir joxe ngir maye waaye itam ngir yaatal dënn waaye itam ngir yaatal xol yi ngir lan pour sunu jëbal jalaaluhu azza kamalu mën nangul la li nga xam ne moom nga woor ci depuis jour koor ga ba tey ji muy vingt-neuf ba trente jours sayyidina nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax ne qad aflaha man tazakka ne yàlla moo ko wax pour mu wax ñu ko kon kay dama nga joxe sa mudd koor su ko defee fer bi noonu lay ubbee ko mu tëjee ko ci lan bu dee ci benn jour la yaa ngi ko tëjee waatee ci beneen fan ba nga woor su fekkee da nga ko continuer pour juróom benn fan ba semaine itam nga woor juróom benn fan yëpp sayyidina rabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne man saama ramadan summa atbaa fiihi aw atbaa alayhi sittan min shawal fa ka annama saama dahra kulluhu mu ne képp koo xam ne woor na weeru koor ba noppi mu toftal ca walla mu teg ca wala mu ànd ak loola dog gi feetu ba pare continuwaat woor juróom benn fan mu ne kooku dafa mel ni woor na dundam yëpp axakañ ngir lan sunna bi ci nekk ngir lan wér bu ci nekk ngir suumu tasixu woor leen ngeen wér xiif leen pour ngeen wér na mar pour ngeen wér kon xiif reyul kenn mar reyul kenn li fekk na mu ngi jaar ci yoon bi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ku ci am gànt nag mu ne kooku nag nga jël ko ci beneen fan ya bi maanaa lebal fan boobu bu wéeru ko wéer wéer bi jeexee mu ne nga daal di eh, fay bés boobu fa man kaana maridan aw ala safar fa iddatun min ayaamin uxar yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra wali tukmilu l idda wali tukabbiru llaha ala ma hadakum wa laalakum tashkurun ne yàlla ne sadaqallahu alazim ne yàlla ne dafa bëgg lépp yomb ci yéen bëggul dara jafe bëggul problème ci yéen bëggul fitna ci yéen dafa bëgg lépp nekk lu lu yemb lu baax lu yomb lu yemb te yomb lu yomb te yemb te lépp jaar ci yoon kon bu ko defee mu doon feet boo xam ne mu ne su fekkee ne joxe nga loolu nga dem nga julli ji julli jooju nag nga julli ko ñaar rakka sante ko yàlla ñaar rakka yoo xam ne daawoo ko defee ñi nga xam ne noonu nga daan defee ñaar rakka ya ci takbiraat ya ci ruko ya ci sujjóot ya ca njàngin ma lépp mu ne bokkul ak na ko daan defee soo paree ci julli ba itam julli boobu mu ne na nga yéeg ci mimbar bi nga xutba walla bokk ki nga xam ne moom moo war a jiite mu ba wax ak nit ñi li xew ci weer wi li xew ci bis bi li xew ci semaine bi daal di ngeen waxtaan nag seen biir nag xool li nga xam ne moom gën a dund te mën a yàq yàq seen diine te mën a yàq yàq seen alaaxira te mën a yàq itam yàq seen àddina ngeen wëtu dugg ko li mën a defar itam ngeen defar seen àddina ak seen alaaxira ngeen defaru te defaroo ko te defaroo ci moo tax ba boo demee ba mën na la léegi feet bi yow daf ci am wàll boo xam ne man yàlla maa ko moom mu am wàll boo xam ne yow yaa ko moom wala bi nga xam ne yow yaa ko moom mooy sangu ba set sol lu rafet wala soxlu sol lu bees soo amul lu bees nga sol lu rafet sol loo xam ne nit ñi danga xam ne kii dafay feetu na nga watu na nga defar sa kawar na nga defar sa yére na nga ut say mbaxana bi maanaa na nga defaru ba rafet na nga laal parfom waaye tam balaa ngay xëy di dem na nga lekk dara sa biir donte benn tàndarma la sax won sa jëmm won sa bopp ne tey du bésu koor bésu feet la yooyu yaa ko moom waaye fan la jëm ci yàlla ngir jaamoo ko yàlla yére bi ngay sol lan la ko yàlla di doyee mu ne leesal jamaalu bi aswaabin tuzayyinuna innal jamaala jamaal al ilmi wal adabi taar nekkul ci yére yi waaye taar mu ci xol yi taar nekkul ci basin yi yu riis yi wala ci yeneen colin yi waaye taar dëgg-dëgg mu ci xol yi ak xel yi mu ci yar ak teggin ku xool am yar am teggin taaru boobu moo gën beneen taar bi ñu tuddee ne lii taaru lii la lii taaru lale la bokki jullit bokki Sénégal bokki Afrique bokki àdduna wërngal képp fii ci 7TV ci seen émission spéciale Korité mu mel ni wàllu wàllu bi nga xam ne yaa moom sa bopp ak wàllu bi nga xam ne yàlla moo ko moomal boppam ci julli ba ci joxe muddu koor ba ci xutba ba ci pare génn nag mu ne demal nag acca fi nga jaaroon ngir ñëw julli si na wuute yoon yi na wuute fa ngay jaar pour mën a ñibbi sa kër axakay ah, nga ne du dara axakay ah, yeneen axakay ah, dara la man maa ko bëggee noonu man maa ko santaanee noona maa bëgg mbir mi doxee nii ngir lan man yàlla jalla jalaaluhu azza kamaaluhu may xool lu ma neex lu ma soob ma ne nii laa ko bëggee ngeen defee ko na may xool lu ma soob ma ne lii baaxul ngeen bàyyi ko mu mel ni kon su fekkee ne jë jóg nañ ci julli ba nag mooy na ngeen dem seeti bokk yi na leen ziyaarante na ngeen xool bokk yi na ngeen ci taqal na ngeen ci àndal na ngeen ci yéwénoo na ngeen ci baaxewante ci seeti say bokk ci lan baal sa morom jéglu ko baaluwante joxante loxo déwénante déwénante yooyu yëpp pour lan la pour boo ne ñu ngi ci feet boo xamante ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ñu ko sant pour ñu defee ko noonu lekk leen kulu washrabu wala tusrifu lekk leen naan leen bu kenn war bés boobu amul kuy fay amul ku fayut bés la boo xam ne xaraam na sib nañu ku ci woor ndax déedéet bésu iid la yàlla ne dama leen ci sant pour ngeen lekk ak naan nekkul ne pour ngeen def ko di ci woor wala ci am benn problème moo tax mu ne ki nga xam ne amul lu mu lekk amul lu mu naan yëkkati ci sa alal nga jox ko te loolu mooy mudd koor bi pour bés boobu bu mu am problème na toog benn place na set na sellal boppam na sol ay yéreem lii moo tax ñu ne kon nañ ko def social boobu nga xam ne jalla jalaaluhu azza kamaaluhu moo ko euh, santaane ne qad aflaha man tazakka ki joxe qad aflaha man tazakka ki joxe cër ki joxe alal ki joxe euh, muddu yooyu yëpp sayyidina rabbina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne na kon payu boobu nag yàlla ne moom moo lay fayal boppam mu mel ni bari waana ci ay wérante yi am ci diggante itam joxe mudd koor yi ndax da joxe ñetti kilo rek doy na ci wala da koy xaaj def leen déedéet yow dañ la wax ne joxe li nga mën a joxe joxe ko nekkul ne yow yaay taxaw nag di wax nit naka la koy defee jox ko mu dem te yóbbu waaye nag sañ nga nag yow nga waroon a joxeel juróom benn nit ñetti nit ñi nga génnee ko ci li nga xam ne mooy ñam wala mooy lekk wala mooy ceeb wala bokk ni ko xalis bi waxee li ëpp ci waa réew mi lañuy dundee lañuy ñuy dundee te lu ëpp ci waa réew mi lañuy dundee fii mooy ceeb ak dugub ceeb ak dugub ñaar yi mooy yi nga xam ne mën nañ ko ndi ko ndékkee di ko añee kon moo ëpp ci li ñu lekk kon boo joxe joxe ko ci dugub wala nga joxe ko ci ceeb fekkee ne dugub nga ëppale joxe ko ci dugub bu dee ceeb nga ëppale nga joxe ko fa su fekkee ne dafa am ñetti cër wala bokk ñetti prix ci ceeb bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi wala muy ñaari prix mu wuute su wuutee da ngay jël bi nga xam ne moo ne ci digg bi bi nga xam ne mën nga ko te def ko soo ko defee ci bi nga xam ne moom ngay dundee nag moo gën a ti ci bi nga xam ne bu dee yow ci bi gën a cher ci ngay dund kon joxal ci bi gën a cher ndax lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun waxuñu nag ne boo ko joxewul ci bi ngay lekk rek amuloo ko déedéet waxuñu loolu waaye li ñu bëgg a wax mooy ci bi ngay lekk boo ko joxee daal moo gën beneen ba su fekkee ne ñetti prix dafa am bii cent la bii 500 bii cinquante yow booy joxee joxe si 650 bi te 650 ngay dundee ah kañ ndax li nga gën a bëgg nga joxe ko ci lay toll ala dina dina gën a fay boo ko joxee ci beneen waxuñ ne amuloo ko de waaye nag joxe nga sa muddu koor kon bu ko defee jële jalaaluhu wa azza kamaaluhu li mu indi nag nit ñi dañ ciy dugg ba fitnaal seen bopp kon mun na nekk nga ne bu dee juróom benn nit la ñetti nit ñii ma joxe ko. ci dugub wala ceeb beneen ñetti nit ñale ma compter ko lu mu toll ci xaalis ci prix par ñetti kilo par ñetti kilo wala xasaba li nga bëgg a joxe moo xam 2 kilos 800 la ou 2 kilos 850 2 kilos cent léegi nga jël lu toll noonu ci xaalis nga boole joxe ko pour nit ki mën koo dundee kooku itam alhamdulilahi rabbil alamin kooku itam baax na. bu la neexee itam nga joxe lépp muy xaalis léegi nga joxe li nga xam ne mooy ceeb bi wala dugub bi waaye nga yëkkati ko lépp ci xaalis nga joxe ko kooku itam dara nekk ci. nafret tey su fekkoon ne supposons tey amuloo yii yëpp waaye am na loo am amoon na loo amoon waaye bi koor gi jeex amuloo ko waaye am na lu nga fi am kon la nga fa am joxe ko donte bokk ci li ngi li ñuy dundee waaye nit ki dina ko mën a jëriñoo ci feet bi nga yëkkati nga jox ko ko ndax loolu moo am ndax faaqidu shay'in laa yu'ti balaa ngay ne naam nga ne fa kon bu ko defee feet bi de daal di nekk feet boo xam ne ku ci nekk participer na ci ni ñuy toll ci Sénégal ku ci woor rek am na loo génne pour joxe bu ko defee nag joxe boobu nag kan moo ko moom innama sadaqatu lil fuqaraai wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal gaarimin wa fi sabilillahi wa bni sabili farida min allah ñi nga xam ne seen loxo jub seen ginnaaw muy miskin la muy faqir la amul lu mu dundee amul tey bu dundee tey amul lu mu dundee ëllëg ak ñi nga xamante ne ñoo ci liggéey tey ji boobu nekkoon dañ ko def benn société wala benn comité boo xam ne mooy récolter di jël li nga xam ne di boole jullit ñi la ñuy def ci joxe ci mudd koor dajale ko ci benn di ko joxe ñooñu nga xam ne ñoo cay liggéey ci comité boobu ñu ñu mën nañ jël asaka lu dul xanaa kenn ci ñoom ne déedéet man baal naa ñi fi nekk man sama wàll man danaa ko génne kooku itam mun na nekk ak ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu dugg ci diine ñu leen di propagande di jéem seen diggante di leen di won di leen di jox lu war a mën a tax ñu bàyyi lu bon ñëw ci lu baax ñu bàyyi lëndëm ñëw ci leer ñu bàyyi yeneen diine yi nga xam ne du lislaam ngir ñëw ci biir diine lislaam su fekkee ne alal boobu nga xam ne moom lañ génnee boole ko dajale ko mën nañ ko jox ñooña pour ñu xam ne lislaam bi diine boolo la diine diine diine la boo xam ne dimbalante la diine sociale la diine la boo xam ne amul lenn luñ ciy forcer nit lu dul li yàlla daal forcer doomi aadama bi kon su ma ko defee dana ñëw nga jox leen ko tam ñooñu mën nañ ko jël ñi xam ne ñoo nekk ci ay loxo nga mën a fexe bañ jot ko wala ñu jot ci seen bopp bi maanaa tey jii nit nekk ci barab boo xam ne boo ko joxaleen mudd ko xaalis boobu wala ñam boobu bu ko fayoon tey génn ci moo xam jaam la moo xam prisonnier la tey jii nit ki ñi nga xam ne dañ koy laaj alal ne 300000 day bu ko fayee ñu génnee ko ci kaso bi kon lii nga xam ne mooy mudd koor yi mën nañ koo jël joxe ko foofu pour ko mën a génn ci kaso bi ki nga xam ne dafay tukki dafa jóge Sierra Leone ñëw Gambie jóge Gambie ngir war a dem Mauritanie bu jógee Mauritanie war a dem Mali diggante bi mu ñëw agsi senegaal amul yorut te soxla na dara kooku itam mun nañ ko jox ki nga xam ne itam yàlla dama dafa dogal mu nekk étudiant di jàng wala mu doon ku wut xam-xam waaye amut te bu ñu ko jàppalee dimbale ko li dina ko jëriñ kooku itam ñu yëkkati li nga xam ne mooy muddu koor boobu moo xam ci xaalis la moo xam ci alal la moo xam itam ci ñam la ci lekk la ñu jox ko ko pour mu dimbali koo ko ah kay kii ñi ñëpp mën na jël asaka ñi ñëpp mën nañoo jël li nga xam ne mudd koor lii nag jalla jalaaluhu ne farata maanaam nekkul loo xam ne daf la koy sàkku ci yéen pour ngeen defal ko ko déedéet daf leen di digal ndax ñaar la yu bokkut bi maanaa demande bu yàlla demandé ci mbir yàlla demandé wul kenn dara ci lenn yàlla amul demande yàlla dafay joxe ndigal yàlla dafay joxe ay orde ko loolu nga xam ne na la wóor kenn yàlla nekk dafay am lu muy sàkku ci yow soo ko nee nga def soo ko mën nga bàyyi déedéet daf lay digal ne defal lii te loolu ngay def da nga ko war a par force te bu dee farata la boo ko defee mu sant la mu gërëm la mu dugal la àjjana boo ko bàyyee nga am ca bàkkaar nga dem ci safara loolu mooy farata kantaa sunna nag mooy li nga xam ne boo ko defee mu fay la ca jox la ci ay yiw ay xasanaat yu bëree bare bare bare tiyaaboo bénédiction yu bëree bare bare bare waaye soo ko bàyyee nag loola wàññiwul dara ci yow kooku mooy na kon fi farq bayn al fard wa sunna in kaana fardan in faalahu yusaabu wa in tarakahu yuaaqab su fekkee ne sunna la nag in faalahu yusaab wa in tarakahu laa yuaaqab kon lii mooy diggante bi am diggante farata ak sunna nga war ko xamal sa bopp ne yàlla amul demande bu muy joxe pour ne doomi aadama bi na dem mu def nii mu defal ma nii mu defal bopp déedéet bu dee farata la farata la bu dee sunna moom sunna la moom ko mu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bu dee farata mu jóge ci yàlla lu mel ni que ñoom julli ak yure rëy yooyu nga xam ne moom la santaane pour nit ki jaar ca pour def ko kon su fekkee ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu lii yëpp digle na ko ni ñun ñii de nañu fexe kamtulaay kattan ba yàlla lim ñu digal ñu man di ko def lim ñu digal ñu man di ko am ñu mu ñu ko santee li mu ñu digal ñu mën a jaar ci yoon ba ngir jëriñu ci kon loola dafay delluwaat njëriñ ba ci ñun doomi aadama yi waaye demul ci kenn ku dul ñun suñu bopp kon nag su fekkee ne loolu am na kon ñu war a góor nag ci feet bi dem nag ziyaare wante ba dem ba ci armeel ya dem ziyaare ji ña fa nekk dem seeti ña fa nekk ña fa tëdd xam ne dootuñu jóg ñu nga fa tëdd di xaar rek tëdd di xaar rek ñu ñaane leen yërmande ak ngërmande yàlla waaye itam ci njaboot gi waaye itam ci jërim yi waaye itam ngir jokk bokk jokk bokk jokk bokk yàlla ne maa ngi ak ki nga xam ne mooy jokk bokk waaye bañ naa ki nga xam ne moom day yàq diggante wala bokk dafay xajjatle ay nit wala muy rambaaj ay diggante ay nit fii ci àdduna laata ñuy dem àllaaxira te bu ñu demee àllaaxira itam mu dugal la safara yal nañu ci yàlla musal kon mu mel ni jalla jalaaluhu wa azza kamal ci li mu ñuy sant ci asar ci li nga xam ne moo ñëw ci téere yi téere xam-xam yi ñëw ci alquran ñëw ci hadis amu ci lenn loo xamante ne ñëw na ngir jël nit ki sant ko loo xam ne mënu ko wala mu def loo ko loo xam ne mënu ko déedéet laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha fii ci ñun Sénégal am ñu bëri ñoo xam ne ni ko firee xaw a kéemaane lool laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla santu nit lu mënut déedéet demewut noonu déedéet li mu tekki mooy yàlla ne santuma nit dara lu dul ne ba mu ko koy ba ma ko koy sant man yàlla mën na ko ku lu la yàlla sant rek man nga ko kon ci xel boobu ak xalaat boobu nga ko war a jàppee waroo ko jàppee ne yàlla daal sant nit lu mu mënut déedéet du doon kon bu ko defee ay waxu tappale la ay wax la yoo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi nax sa bopp wala di nax sa morom wala boog nga ñàkk a dégg wala nga bëgg noflaay ak bànneex rek. waaye defa ne nga du ma def ni ndax ni laa ko mu ne nit wax nga ne ko déedéet yàlla mu santu nit lu mu mënut déedéet yàlla waxu loolu yàlla def nit dara lu dul ba nga koy sant man na ko lu mu sant rek man nga ko yow kay yaay tappale ut ay lay ut nangam ak nangam damaa def nii indi ay ngant bu dul say ay ay ngant sa bopp ba mel ni yow xanaa lii lay yàlla subhaanahu wa sant xanaa da nga koo bëggoon mbokk yi ñu ngi ci bésu korité bés boo xam ne bésu feet la bés boo xam ne bésu bésu jokk bokk la bésu xoolante bésu seetante la waaye bésu ñaanante la di bàyyiloo xel ne li nga xam ne moo jóge ci weeru koor bi yëpp nga woor ko pendant un boo moytuwul mën nga ko yàqandoo benn yoon bari na koo xam ne dafa am lu mu liggéey ci tool ya ci àll ba fexe na ba moom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu may na ko mu nekk nit koo xam ne wareef yi mu amoon ci li nga xam ne wareef yi mu amoon ci li nga xam ne mooy mooy weeru koor bi mu def wareef ya ba noppi mu mu defee wareef ya ba noppi ba pare ndikate yoo problème am na ban problème mu am problème bi am mooy ndikate li mu doon jaamu yàlla yépp ñoo ne yàqu ci benn jour wala bokk ci misaal bi mel ni ko xam ne baykat la dem na béy ay toolam bi pare am na ay tonnes am na cinq tonnes ci gerte am na cinq tonnes ci mboq am na cinq tonnes ci li nga xam ne mooy dugub muy 15 tonnes 15 mu dem jaay ko bi mu ko jaayee ci misaal tey ji misaal lay joxe mu mel ni am nañ ci 9 à di millions 10 millions boobu ele mu ñëw liggéey ci fulla ak farata ele mu ñëw liggéey ci mbaax eleko mu ñëw baax ci waaye defu ko mun dafa jël alal booba yàq ko benn yoon jënd ko loo xam ne amul benn njëriñ wala bokk tasaare ko pasaare ko yàq ko wala bokk loo xam ne amul fulla amul fayda mu mel ni tey jii yow kër gaa ngi lay xaar pour nga jënd ceeb gannaaw bi nga jaayee jënd ceeb indi teg besoin yi nga xam ne mën na ci kër gi ñu defaraat ko kër gi ñu tabaxaat ko yow defaroo nga dem jënd ay armoire ak ay lal lal boo xam ne bu mu taaroo taaru du génn ci biti kenn gisu ko nga jël lal 800000 boo xam ne lal 800000 boobu 800000 boobu boo ko defoon ci tabax bi kon bâtiment ba nga commencé woon mat na. jël beneen 800000 nga jënd ci ay frigidaire ak ay yu kenn xamut yoo xam ne bokk na baax na gaa waaye ba koy jënd amoon na bu ndaw boo xam ne 30000 35000 40000 50000 bu rafetlu si yëpp na nga defaat ko ci biir kër gi. xamante ne tey jii def lu jëmm lu xam ne nit ñi bu ñu ñëwee gis ne kii def na dara moo gën a nga yàqate ko ay ci wala dem jënd ko ay sàngara ay lekk drogue naan yamba yoo xamante ne am benn jëriñ benn jëriñ benn jëriñ. wala bi nga demee jënd ñëw bi ñu ñëwee ñu ñaata nga jëndee lii ñuy xool ne valeur 2 millions la nga jënd waaye mu ci lenn loo xam ne am na fulla ak fayda kon noonu la kooka mel wala commerçant boobu noonu la mel wala baykat bi noonu la mel boo moytuwul yow nga mel noonu ci koor gi nag loolu tax laa di digle ni bu leen yàq seen koor ci biir koor gi jàng nga ci xiif jàng nga ci mar jàng nga ci bañ a joo jàng nga ci yar sa gémmiñ yar sa làmmiñ yar say bëñ yar say bët di julli di naafila di jàng alquran di tegu ci yoon bi waaye côté jot na rek ci jour côté ba rek nga génn nag mel ni fas bu rëcc fu ne nga dugg fa lu ne nga dugg ci lu ne nga wax ko ku ne nga saaga ko yu bët yu ne nga def ci nga def ko yu ñaaw yu ne nga def ko yu ñaaw ne nga wax ko yu ñaaw yu ne nga dugg ca dem yow sa xel leen ko lu dul feet bi rek dem tux def lu bon njaaloo saaga yàq yàqal nit ci dara fo rek ak caaxaan ene déedéet feet bi dubul loolu bu ñuy feetu kay dañuy feetu alal ahsan al wajh allazi yuriduhu allahu tabaraka wa taala lana wa alayna ci yoon bi nga xam ne moom la ko sa wa taala soppee bëggee ko ci ñun mooy lan mooy ngeen yem seen kër yi waaye ngeen yëm ci li ma leen sant ngeen bàyyi li ma tere kon fet du mos a mukk ci àdduna ba li nga xam ne mooy fecc ak caaxaan ak wax lu bon def lu bon yooyu mën a dagal du mos a nekk déedéet wala boog di ko Sénégal bi di waxee ah tey feet la lépp lépp dagan déedéet lépp daganut déedéet moo tax ba yéefar yi ak ñen ñi nga xam ne seen xol dëgër woon ci diine am problème am feebar yàlla nabi sallallahu alayhi wasallam waxal ak ñoom wax leen ne qul laa yastawi alxabiisu wa tayyib laa yastawi alxabiisu wa tayyib lu bon ak lu baax mu ne duñu mës a nekk benn du mës a tolloo yàq ak defar du mës a tolloo tooñ ak defar du mës a tolloo jow ak wax lii dëgg du mës a tolloo lekk lu bon lu xaraam du mës sa tolloo ak lekk lu baax lu yiw te neex laa yastawi alxabiisu wa tayyib def lu bon ak def lu baax mu ne duñu mës a tolloo déedéet walaw ajabaka kasratul xabiis donte sax def lu bon li moo ëpp wala ñu ko def ñoo ëpp bi naa tey jii su fekkee dañoo nekk ci dëkk bu ñu 15 millions de sénégalais mu ne 15 millions de sénégalais yooyu su fekkee ne 13 14 millions virgule nàngam sénégalais yi ñoom ñëpp ñoo bon du tax ñele xaaj bale gën a tuuti ñëw tolloo ak ñoom ni ah kon nañ fa bon rek comme ñëpp bon nañ nañ fa bon rek mu ne déedéet kooku mënul nekk walaw ajabaka kasratul xabiis naka noonu bu dee ci kër la kër gu def cinquante personnes mu ne quarante cinq personnes yi yëpp bu fekkee ne ci caaxaan la ñuy dox ci fo la ñuy dox ci njaalo lañuy dox ci yàq la ñuy dox yàqalante la ñuy dox mu ne yooyu noonu du mës a yàgg yàgg bëri bëri ba cinq personnes yi ci kër gi daal di ne ah nañ foofu rek <laughs> indi ma am ci ñoom daal di dem rek eh, tafu ci ñoom ndax lan ah comme ñëpp lu bon la ñuy def xaar ñu def lu bon mun na déedéet du mos a nekk laa yastawi al xabiis wa tayyib walaw ajabaka kasratul xabiis naka noonu moo su fekkee ne ci régime ñi nga xam ne ñooy jubal réew mi ñu ko yor ñu nga xam ne ñoo ko yor di ko def di ko liggéey li ci liggéey su fekkee ne ña cay sàcc ak ñay yàq alalu nit ñi ak ñay nangu doomi aadama yi ñoo ëpp ñi nga xam ne ñoo màndu lu tax itam ba ñu màndu nañu bàyyi seen màndu ñëw ànd ak seen turiyan wala seen yàq wala seen jël alalu jàmm wala seen sàcc déedéet da ngay gis ne su fekkee ci wàllu état la gis nit ñoo xam ne nañu meloon ci kër ya yar ban leen yaroon mu la ñuy indaale ci liggéeyukaay bi bi maanaa yar ak teggin ak màndu lañ la yare mu nga war a indi su fekkee ne itam ñàkk a yar ñàkk a teggin lañu am nekk loolu itam la ñuy indi itam ci li nga xam ne moom la ñuy dund fii kon su boobaa kon pour ñu mën a jaar ci yoon bi kon kenn ku ci nekk na jëm kémtulaay kattan ba baax ni sa morom baaxee baax ni ko taala santaane ak ni mu ko buggee kon mbokk yi mel ni ko ñu ngi tàggatoo ci waxtaan bii nga xam ne incha allah dana ñëwaat comme spécial korité la ñu waat ci yeneen émission bu weeru koor bi passé ramadan mubarak dafay jeex waaye beneen spécial tabaski dana ñëw waaye dina am beneen itam boo xam ne ci biir nañ ko doon defee ci ramadan mubarak am na la voix de la mosquée nga xamante ne incha allahu daañu ànd ak yéen di ko jëflante ak yéen di fàttaliwante ak yéen nafarante ak yéen lañ jàngoon ci daara ja lañ jàngoon ci école ba lañ jàngoon itam ci mag ña ak lañu ñu sukkoon nag ci wuuju ba mu ñaan ko loolu tam ñu mën ko indi fi ñëpp ñu pàccoo ko daal di ko jëriñoo mu mel ne kon ñu ngi ñaan ci yàlla njiitu réew mi ji Bachir président Bachiru Mouhamed Bachir Diomaye Diakhar fay ak ki nga xam ne mooy Seydi euh, Ousmane Sonko di premier ministre ñu leen di ñaanal amoo président bi di leen di ñaanal suñu président bi leen di ñaanal yàlla teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ndax yàlla indi leen ci réew mi ñun ngi am yaakaar ci ñoom kon nañu góor góorlu def fulla ak fayda def farata juboo ak déggoo bàyyi xel itam seytaane wala saay-saay wala rambaaj bu dugg seen diggante wala bu yàq li nga xam ne mooy askan bi ndax ku leen yàqal rek yàqal na askan bi ku leen yàqal yàqal na réew mi te ku yàq réew mi réew mi dootul jag mukk abadan te nag ay ati at kenn ku ci nekk am loo doon jàmbat am ñuy jàmbat am ñu ne det noonu baax na bu ñu dematee bi ñu nekk ñëpp ne dara baaxatul nañ jëlee li fi nekk indi leneen lu bees kon lu bees loolu war nañ ciy gis suñu bopp baykat bi na ci gis boppam sàmmkat bi na ci gis boppam waaye itam ki nga xam ne mooy càmm càmb gi itam mooy sàmmkat bi na gis kon càmm gi ak napp gi ak li nga xam ne mooy eh, mbay mi ne nekk awlawiya nekk première chose yi nga xam ne moo war a jóg nag su ko defee nag ger bi itam ñu toppatoo ko topp ko ba mu jaar ci yoon ndax ngir baaxul dafay yàq réew dafay yàq àdduna dafay yàqal ay nit bu loolu passé nag weesoo nag ñu ne ko ñun lañ defaroo suñu biir dañu bëggante Sénégal nañu bëggante nañu ànd nañu nekk benn nañu def bag na rafet na ak jag na ak baax na nañu fexe ba kenn ku ci nekk lu baax yëpp nga def ko yu bon yëpp nga bàyyi ko yu rafet yëpp nga def ko yu ñaaw yëpp nga moytandiku ko bu ñu ko defee réew mi dina neex kon ñu ngi ñaan waa télé bi waa rajo bi rawatina ki nga xam ne mooy Maimouna Ndour Faye ni ñu ko waxee woon defal ko sutura ak tawfeex ak taysir métale bi gën a yokk ci kaw rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar wa adxilna aljannata maa al abrar ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin allahuma rabbi xabib ilna al iman wa zayinu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan wa jaalna min alrachidin wa jaalna min alsalihin wa jaalna min alqanitin wa jaalna min alxafizin tawabin altaibin alladina la xawfun alayhim wala hum yahzanun rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada yansurkum allahu fala galiba qablakum illaa tansuru faqad nasarahu llah is axrajahu alladina kafaru saani yasnayni id huma fi lgaar is yaqul li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayadahu bi junudin lam tarawha wa jacala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatu llahi al ulya wallahu alimun hakim allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallayta fil alamin innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin